à des CIS, euh, en tout cas la justice traque les présumés prétendants. justice est ce bi dafa déclencher un euh, bien enquête bu que euh, poursuivre exactement sont des prétendants. justice ces oui mais bien sûr pour nous def la complice parce que ah yoon la bien sûr Hana prête nom bi. Arfan la nga nous sa carte te Nous xam foo yóbbu carte te dem Sénégal vie nit sa carte te yo xamoo fu mu jëm ak sa carte Sénégal hmm. doy nit abal ma sa carte yo te sommes ko lu gën non mais fallo il faut arrêter Yo da nga ne kay da nga and mu neex. ci <laughs> moment bu de def da ngay mais ni ci Sénégal bi ni nit dina la ne Serigne Fallou abal ma sa carte d'identité té doo ko laaj foo yóbbu fo fo foo sama carte d'identité non je je crois pas majeur et vacciné yow nit ñëw abal sa carte d'identité té doo ko laaj foo yóbbu sama carte d'identité non Serigne Fallou xana kay da ngay né moma bu mu koy def neexoon parce que dëkk yaata yumbe la Macky Sall moo fi nekkoon gars di sàcc comme nu mu leen neex waa ji ñëw jël sa carte d'identité ne la dama lay defal prête non mu mel ni yow yaa moom lii nga géréel ma ko après euh, ma lay compal tuuti too yow nga accepté ko voilà les prétendants que nu ñu koy defee man tey su ma société su may je te donne un exemple. su may blanchir tey xaalis. Hmm. ma soxla sa yow Fallou dama soxla sa dama bëgg société hmm. mais ce tour là bëgg maak yow ñu bokk ko yow nga gérer hmm. mais nak suma ko defee sa tour fin du mois bu ne day am li ma lay jox yow da ngay gañe man ma gañe te ma si feeñ te man mi def prêt note bi du ma si fait. sa tour mo fay nek donc tu es complice est-ce que comprendre nak? cela veut dire que yo, da accepter jouer le jeu là. mais avant mais avant ñu amna, euh, amna ñu ay exactement est-ce que ñom comprendre ñu xama état xamul sentiment état xamna ni que ki bon la gis nga buñu égué bañu xamni ki ki la dañ ko ci jeu bi. Hmm. yoon du ko da koy relaxer parce que ragnéwul est-ce que comprendre parce que ràññewul hmm. pour ne pas les stigmatiser amna ñu ci loolu wax ni euh, ça n'a rien à voir mais des fois ñu se sa carte loolu wax ni amna ño xam sax ñun. loolu wax ni état li ngay wax ni état xamna ko bu baax c'est <laughs> c'est pas un débat. ay le fait que non waji ji bonhomme bi nek ci kër ga le jël carte d'identité dem ubbi société état xamna bu baax li ngay wax ni donc jël nañu ay mesures des précautions pour parer à d'éventuels à d'éventuels cas état bu demee ba tasee cas bu mel nii bi nga wax ni ni que diwu ab bonom la jël di ki ni état xam na nu koy nu koy nu koy traiter état xam na ko justice xam na nu ces cas là est-ce que comprendre nga. Mm, mm, mm. justice xam na bu baax baax lu muy traiter ces cas là te cas yooyu wul xam ak yan cas la bëri dafa diw dafa jël jarbaatam wala diw dafa jël ko bokk ci famille am wala diw dafa jël sa petite sœur wala sa grande sœur wala doomam bu jigéen hmm. jël tuuram ubbi ci société wala ubbi compte bancaire supposant que rakam boobu moo ko moom cas yooyu ñoo au sein de la même famille mais bon ab bon

sàcc alal Sénégal di ubbi ay société ba pare nga koy jox ay say jarbat say rak say mag say dom, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy ñu koy ñu koy gérer supposer que c'est un bien familial tu as da nga ubbi ben société familiale nga employer les membres de ta famille sous prétexte alors que tu as volé des derniers publics Khalid Sénégal tu ngay jëfëndiko ni c'est clair mi ngi exactement donc jàppale ni un fu toll enquête tidina dans le cadre de la reddition des comptes lancée par les nouvelles autorités ne concerne pas que les dignitaires de l'ancien régime mais tam concerne aussi euh, li nga les prêtres sont également dans le viseur de la justice en tout cas le parquet financier nak mu di lancé bien que procédure contre ces derniers ce que ko si libération bi nga xam ne moo joxe information bi le procureur devra ordonner à ordonner une enquête pour faire la lumière sur d'importantes sessions euh, foncières qui ont été effectuées itam ñu koy daal di effectuer euh, si société civile immobilière euh, si yenn si ay sites yu su mel BOA ak opération yi nga itam teg nañ ko fa nous ko suspendre exactement une trentaine de sociétés civiles immobilières concernées. la en tout cas la justice mi ngi soupçonné exactement ay patrons. Euh, que ni dañoo daal utiliser ay prête non wala comme ça ay portons yoo xam ne ñii nekkul société mais de fa daal di tege utiliser seen ay tour à ses yeux font mu n'a que nag euh, li nga xam nekk mu di yoon ak wàllu yoonal fexe na ba daal leen war que mën ku nekk exactement la ne daal leen toppee si kanam yoon ak donc libération mu informe que tamit enquêteurs yi jamono ji ñi vérifier euh, ces conditions dans lesquelles ces sessions ont été effectuées en tout cas la régularité des opérations mais aussi les présumés liens entre les dirigeants et euh, les euh, SIE euh, et les dignitaires de l'ancien régime exactement ñu fi nekkoon ak ñi nga xam ni itam tour entreprise si exactement je pense que c'est clair le procureur financier encore une fois jamono ji a pu ordonner cela alors ñu daal di koy jeexalee leneen itam du côté de la régie Arfan dafa am information xam boo xam ni itam dafa wàcc mm-hmm. foofu assemblée nationale ñu les députés euh, sortants euh, sont privés justement euh, de leur salaire et justement de carburant enfin Madame jamono dilen ko euh, si l'on en croit bi le jour tay ni les députés sortants bu e législature e ji ñu salaire ak li nga xamné que modi carburant euh, jusqu'à ce dimanche 7 octobre euh, ils sont passés à la caisse alors qu'ils avaient l'habitude d'être payés le 2 de chaque à chaque mois gisuñu ko fa ñu fa salaire exactement donc nak trésor public bi mi interpellé à plusieurs reprises que ni ses responsables déclarent attendre des instructions en tout cas euh, lépp lu si mën a am rek euh, fu mu toll nii Arfan mu ne jàpp ni bloqué neen salaire carburant yu député yi serait une directive du Premier ministre qui avait annoncé le blocage des salaires des membres de HCCT et du 16. en tout cas euh, journal bi dafa daal di laaj question est-ce que nekkul ay directive Premier ministre ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko en tout cas aussi Sonko dans le viseur de des accusations lan ni mën par rapport ak wàllu wu mel toujours c'est Sonko <laughs> bu doxalee Sonko ci l'homme finance Sonko ci qui son Sonko toujours c'est Ousmane Sonko qui bloque les salaires il faut arrêter lu xew rek dañuy faté le Sénégal a un président de la République mais Sonko co wax est ce que du Sonko mo mo mo non Sonko Sonko dafa un problème il faut arrêter dama quelqu'un qui n'est pas au service de l'État hmm. duñ la fay je veux que son qu'on soit clair sur ça quelqu'un qui n'est pas au service de l'État Yamano Bini... nii au Sénégal afan Waro, là tu étais d'accord avec nous Kenny... Damane, dama ne leur <laughs> statut de député il n'est pas dit qu'ils sont en fonction ils sont pas en fonction mais avant tu étais d'accord avec moi Kenny... ni Bon novembre attends qu'est-ce qui a changé entre temps mais avant si nous avons une législature ils sont toujours des députés oui il faut il faut quand même l'admettre. oui donc carburant accès salaire lu tax ñu gànkal leen ko. Ama Fallou c'est-à-dire que vous vous êtes tellement sentimental de l'émotion. non même pas au-delà de ça non non non c'est ça c'est ça un état état du non lay doxee état du tu ci ay sentiment yo li ngay wax ni sentiment non non non non non je suis sérieux. mais tu étais convenu. xam nga fallo Fallou. mais avant avant tu étais convenu avec nous que je suis convenu avec personne ils sont toujours députés.

lu woon wane na du ma doxee ci ay caaxan du ma doxee ci ay sentiment te li ngay wax ni ci ay sentiment ngay wax non député yi même mën nga nangu seen oto nangu seen caabi kër les les les maisons de résidence mais mën nga leen jox salaire du loolu nga bëgg a wax. loolu mooy sentimentaliste. alors dama yow li nga waxoon léegi da nga les agents de l'état sont payés parce que ils sont en fonction. ok tu es d'accord avec moi non non non non je veux qu'on soit d'accord sur ça Les députés sont en fonction. mais enfin, les députés sont en fonction ils sont pas en fonction on a coupé le fonction mais tant que amuñu assemblée bu ils ils sont pas en fonction. non non non Je ne fàllu. pas mënut a bëgg les agents de l'État sont payés quand ils sont en fonction ils sont en fonction mais les députés tas l'Assemblée assemblée nationale ils ne sont plus en fonction D'ailleurs, garder statut de député ils ont gardé leur statut de député mais ils sont pas en fonction tu es d'accord avec moi maintenant nga quelqu'un qui n'est pas en fonction Fallo je te donne un exemple terre à terre Sénégal 5 TV c'est une entreprise non les agents sont sont pointés chaque jour bo ñëwee 8 heures nga émarger ni que liggéey nga ba sa sangam. Hmm. nga pointé bo ñëwee 8 heures nga nga pointé ni heure bi la ñëw 16 heures heure wacc wala 19h heures wala 20 heures wala 21h heures heure wacc nga pointé ni que heure bi la wacc un entreprise sérieux je te donne un exemple hein, pour nga comprendre maintenant imaginez le gars qui est parti wala mu togu kërëm té mu wara a liggéey ci Sénégal 5 TV té ñu koy pointé chaque jour aujourd'hui il n'est pas venu kenn pointé quoi? ko. demee suba ñëwul gannaaw suba une semaine deux semaines trois semaines ñëwul quatrième semaine bi équivalent de un mois quatrième semaine bi waa supposé que ñëw wala ñëwul léegi fin du mois jot ñu yóbbu cahier cahier de pointage ñu ko au niveau de la direction des finances wala du comptable. ...ou de la direction bi salaire mais si vous que pointage ça fait un mois que vous liggéey duñ ko fay mois bobo. tu es d'accord avec moi duñ ko fay mois parce que pointé où entreprise maintenant nous ne ma war député alors que dans leur cahier de pointage ils sont pas en fonction nga ne dañ leen war a fay nañu xoolaat ci loolu moo tax ma ne la sentimental le député qui n'est pas en fonction il a gardé son statut de député Bala, ele bala benen assemblée di ñëw il n'est plus en fonction nga ne fin du mois bu jotee ñu viré ko loolu mooy toog muy dox bi député bi mu ngi togg kërëm mais fin du mois bu jotee ñu viré ko. mais non non non je te pose non non non man dama bëgg boo ñu d'accordé euh, ci loolu rek. boo ñu d'accordé ci loolu rek mané la d'accord d'accord légui mën nañu len fay député bi mën na togo këram amul science science ordinaire amul science extraordinaire il n'est pas en fonction mu togo këram fin du mois d'ici jusqu'au mois de de novembre wala ñu ak lo ci ñu continuer di virer le gars qui est chez lui wul sa buntu assemblée nationale parce que a tas assemblée nationale bi nga ne nañu continuer di di ko virer salaire nañu continuer di ko jox carburant parce que bu li yam ci salaire bi kese dañu ne ils ont bloqué leur carburant et leur salaire maintenant yow fallu bo nee nañ len fay salaire kon nañ len fay salaire ba paré jox len carburant bi parce que député boko jox doo ko jox benn moitié député mom boko jox mom dang koy jox lepp lu mom et carburant et salaire euh, maintenant boko naré jox ci quelqu'un qui est chez lui il n'est pas en fonction. Ousmane Sonko, au moment où des Sénégalais sont tentés, ils ont leur diplôme du sommet dans les universités, les universités là. Ils sont diplômés. amuñu xëy amuñu dara yow nga ne nañu fay ay sont yu en fonction Ils ont un salaire de un million au moment où d'autres jeunes sont dans la rue en train de sommer avec leur diplôme léegi xolatal loolu. mais enfin Ousmane Sonko dafa waxoon que ni dañuy bloquer xolatal loolu salaire wu ñi nekkon ci institution yu ñu mel. dañuy e bloquer salaire de quelqu'un qui n'est pas en fonction point dañuy bloquer salaire de quelqu'un qui n'est plus en fonction président génn na décret bloqué sa fonction waruñu amuñu droit virer la salaire Fallu. il faut pas ngeen doxal ak sentiment état xamul sentiment état collaborateur la xam état agent la xam fonctionnaire la xam collaborateur agent direct fonctionnaire hmm. wala wala wala partenaire état loolu la xam état n'a pas état amul ami amul sentiment amul xaritoo parce que député non man dama xool na xool mais député dama dama xawa ki quoi dama kon xaram ma virer loolu sentiment ben nit la comme yow. loolu loi bi moo bind. dedet dedet déedéet Arfan déedéet loolu mënut a nekk poste vacant marqué dissoudre neen assemblée nationale. dedet déedéet. plénière du fa amati mais liguey bi batay mi ngi dox. dedet Arfan liggéey bi mo mi ngi dox benn liggéey doxul assemblée nationale ba liguey mo fa do ba liguey mo dox assemblée nationale. non non Fallou non Fallou Fallou sois sérieux toi aussi quand même sois sérieux quand même ba liguey mo dox assemblée nationale. Non, Fallo, Fallo, Fallo, sois sérieux toi aussi, Galas. Sois sérieux. Ben liguey doxul l'Assemblée nationale. Nous avons un salaire. Hein? jox salaire. Hein? salaire. Le lolu. Président le décret tas l'Assemblée nationale C'est comme si un gendarme qu'on a radié aujourd'hui on <coughs> ne un salaire. En attendant ñu remplacer ko ci poste bobu ñu ko viré. mais fan fi nga tok d'accord ak sénégalais que ni fi bañuy amat ben assemblée ñom dañuy continuer batay du di sénégalais seen. déedéet waxuma lolu de dama né dañuy continuer di garder sen statut de député. ak sen ay salaire dédé waxuma lolu mais avant ku garder statut de député war nga am salaire dédé dédé mais avant ku nekk statut député war nga am salaire avant soo nekkee statut agent agent de 5 TV da ngay am sa salaire parce que statut nga am mooy est statut agent. de 5 TV yow da ngay non Arfan Arfan moo tax la yow da nga nekk di jaawale mbir. statut suñ fa nekkee ba nañ am seen salaire en tout cas euh, mu nek lu am solo euh, donc euh, on est pris par le temps donc les députés ñom nak jëmono ji ñi ngi rappeler article 87 alinéa 4 que ni et ni que leur mandat expire à la date de la proclamation des résultats de l'élection des membres de la nouvelle assemblée. Ce qui veut dire qu'ils ont le droit à leur salaire et avantages de parlementaires jusqu'après le 17 novembre prochain. date des élections législatives Lorsque d'accord on est sax exactement à salaire mais ñeneen ñi su la ku ku on salaire exactement enfin espace public